liggéey bi ak seen engagement depuis mouvement bi bu ngeen ko créer ba léegi en tout cas euh, ñoo ngi leen di ràññee si seen engagement seen dynamisme ak seen organisation euh, lu may wax euh, ak ci contexte bi mooy ni report élection yi comme nuñ ko waxee ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg parce que reporter élection mooy prolonger mandat du président de la république te prolonger mandat du président de la république constitution bi da koy tere ci article vingt sept jébbal nañu nag conseil constitutionnel loi ba nga xam ne moom nañu voté assemblée nationale te voté anam yu ñu ko voté ñu jaay ñu doole buntu xatal ñu jël gendarmerie. jël député opposition yi génnee leen par force ñii ñu séquestré leen ñii ñu gaañ leen donc pour ñoom mun a commettre seeni forfait lu ñuy ñaan conseil constitutionnel nag mooy mu diir la droit parce que loi boobu comme àndul ak lu constitution wax article vingt-sept ak article centroit dañ ko mu war a annuler su boobaa dëkk bi dellu ci jàmm fitna ba nga xam ne dàq élection yi report élection yi ak prolonger mandat président de la république moo ko indi fitna boobu jóge ci dëkk bi yaakaar naa ni loolu daal mooy solution te conseil constitutionnel am na responsabilité historique pour mu jël ay responsabilité am parce que dégg nañu ay caaxaankat ak ay tappalekat ñu ne conseil constitutionnel mënul saytu luy loi constitutionnelle mais ñooñu yaakaar naa ni euh, seen droit daa moqul parce que ku xool jurisprudence conseil constitutionnel que ce soit en 2006 et en 2016 lu mu wax leer na naññ nee na mandat kenn mënu kaa yokk kenn mënu kaa wàññi ku mënul wàññi tamit mënoo yokk parce que président de la république moo bëggoon wàññi mandat am xam naa ni gëmu ko woon sax mais. pexe la woon rek mu laaj leen question ba ñoom ñu ne ko ah mandat bu la peuple bi jox parce que mandat peuple moo koy joxe munoo kaa wàññi kon ku amul sañ-sañu wàññi amul sañ-sañu yokk waaw sooy wàññi da ngay wàññi lu nga moom donc leneen lu mu waxoon également mooy ne loi constitutionnelle yi mën nañ kaa saytu su fekkee ni dañ ko jël nuñ ko warul jëlee maanaam dañ ko adopté nuñ ko adopté jaarul yoon parce que dafa am procédure boo xam ne da ko war a respecté su fekkee ni tamit da nga la loi constitutionnelle dafa réviser benn domaine de la constitution boo xam ne kenn mënu kaa réviser loolu tamit su amee muy article vingt-sept loolu kenn mënu kaa réviser mooy ñaari mandat yoo xam ne moom nga mën a am ak durée mandat ba nga xam ne cinq ans la mën a yem leneen li mooy caractère républicain de l'État mooy Sénégal kenn du ko dono kenn du ko donn ay affaire buur yooyu jeex na léegi république nañu wax leneen li à part le caractère républicain de l'État le nombre ak durée de mandat mooy nu ñuy falee président de la république président de la république suffrage universel direct nañ koy falee maanaam kenn mënul yeewu ne am naa majorité assemblée nationale si ay pexe nga ne woy damay réviser constitution bi pour léegi chef de village yeeg chef de quartier yi dajaloo chaque fal président de la république loolu mënul nekk donc conseil constitutionnel soo ko indilee loi constitutionnelle yu mel noonu moom responsabilité mooy mu dàq leen annule leen voilà donc yaakaar naa ni euh, suñu président Ousmane sonk ak candidat bassiru Diomaye Faye au sein de la coalition Diomaye président ak parti bi Pastef directive yi ñu jox mooy ñu taxaw temm xeex loolu di naan nag mbir mi du mbiru parti mbir mi du mbirum coalition mbiru sénégalais yépp la donc ñoo ngi ñaan ñépp taxaw xeex ko pour ñu delluwaat ci processus électoral mën a tenir les élections yi le 25 février 2024 ñoo ngi ñaan tamit ñépp a nga xam ne ay parties prenante lañ société civile secteur privé toutes les composantes de la nation ñu jël seen responsabilité parce que ñun xeex bi ba nga ko tàmbalee xeex yàgg na yaakaar naa ne bu ñu créé parti bi 2014 dévié wuñu suñu trajectoire depuis deux mille vingt et un ñu songuñu agressé parti bi agressé son président agressé les militants ak les responsables si loo xam ne dañu bëggoon juste participer si à la marche de la nation pour jëlee Sénégal si situation bu mu nekk yóbbu ko teg ko ci raay yi nga xam ne moo koy yóbbu vers le développement le véritable développement loolu looy projet PASTEF loolu la proposé te yaakaar naa ni tey soo leen gisee bàyyiwuñu benn composante nation tey soo leen gisee mouvement yi am na mouvement magi Pastef am na mouvement des jeunes am na mouvement jigéenu Pastef am na mouvement des artisans am na mouvement des enseignants am na mouvement doomu daara mouvement des transporteurs ak mouvement national des personnes handicapées te personnes handicapées yi dañu nekk une composante essentielle de la nation ñuy jouer un rôle important am ay droits yoo xam ne droit international textes internationaux traités internationaux yu nga xam ne Sénégal moo ko ratifié moo leen ko may constitution Sénégal ak ay lois yu mel ni loi d'orientation sociale nga xam ne depuis bu ñu ko jëlee ba léegi dañu am problème pour appliquer ko. parce que décret d' yi. dafay tardé mesure d' application yi dafay tardé te wax ngeen ko léegi programme ba nga xam ne mooy programme coalition Sonko président Diomaye président jagleel nañ ci place bu importante domaine lu ñuy woowee inclusion mooy naan jël en compte les personnes que dëkk mënul dox su fekkee na nga jël benn partie benn pàcc. nga exclure leen moo tax on parle d'inclusion sociale pour que ñëpp mën a gis seen bopp ci dëkk bi nu muy doxee donc ñoo ngi leen di jaajëfal vraiment di rafetlu organisation bi gis nañu euh, suñu frères yi nga xam ne ay détenus politiques nañu mun naa ne sax ay otages politiques tey dégg nañ ni libéré nañ leen ñu ci am. kontaante di si am mbëgte mais dinaan nag la combat continue